xaw ma da ngaa teel a li nga xam ne statut la wala nu mu demee danga jàpp ni combat boobu daal du combat bu am enjeu combat combat nu ñu koy de euh, combat euh, maanaam daal maanaam daal du com du combat daal yow ni nga ko gisee wala pourtant nag dégg nga li Modou Lo wax dégg nga ni Siteu wax. ah en tout daal c'est bizarre. maanaam ñoom ñoo fi tax woon wax de Modou Lo ma fi taxaw wax naan Siteu Kader xaw ma magam. moo tax sama mag yooyu yaa ngi gis. mais loolu mais. jarbaat bi génn bëgg ñu ne ko Modou Lo Siteu. kon tamit mu ne mu ne foofu mboq dugg na fa ba pare foofu moom lam moom mënatu fa nekk waaw ñoom ñaar ñu fotowu di demalante am na combat si dafa am te Modou na ba si kanamu Siteu waaw ñoom ñaar buñ na bañ a bañ xel bu la neexee tam ñu dëggal seen bopp pour bëre mais xel man sama xel nanguwul moom wax dëgg da nga jàpp ni combine la de ah xaw ma combine la xaw ma mais ñoom ñoo ko waxoon si média yi Modou Lo nee na roi des arènes bii fas yéene wu ko bàyyi léegi de te Siteu dégg fan yi def na benn sorte bu doy waar Siteu du caaxaanewul combat mu wax dëgg fa yàlla mu koo moom mu ma problème boo xoolee say problème wala ay jëfiñam da nga xam ne kii daa pare pour bëri mais jeex na mais dégg nga Siteu tam Siteu nee na bu arbitre ne prix nga xam ne lépp dëgg la bu la neexee ñoom waa léegi ñoom la ñu waxoon avant mboq bi dugg duñ bëre tey ñu waxaat lii kay yow ngay ba gis jour si nu mais mais yéen est-ce yéen yàq làmb ji tam yéen yéen Batista xam nga yow tey mënoon ngi nekk écrit euh, euh, xam sa cosaan gis nañu ñi nga xamante ni itam euh, carrément muy Eumeu Sène moo xam moo moo xam Boy Niang moo xam Ama Baldé est-ce que yéen làmb mënu loon dem ba boole parce que yéen bokku leen écrit mais da ngeen bëgg ne jàpp ni rek xëy na pikin bi dugg na nii rek mais est-ce que loolu da yàq làmb ji. pikin bi pour waa pikin bëre seen biir. <laughs> mais làmb mën na dem. <laughs> non làmb kay moom neexewul noonu loolu làmb. mais lan moo tax écurie yi bëri kon. waaw mais noonu la xam nga kii Pikine moom. mais mais bu fekkoon loolu non Batista dañuy waxante nag mais bu fekkoon loolu dañuy jël benn écurie yéen ñëpp ngeen ne fa mais ku ci nekk yéen a ngi bari seen écurie kay xanaa nag bëre mën na leen a boole. mais loolu impossible yow ay 800 nangam personnes ci benn écurie loolu c'est bizarre yow loolu da ngay dem doo xam mbëri sax loolu mënul nekk des fois xanaa gars yi daje fenn entraîné ni mais écurie yi dañoo bëri Pikine nu mu bëri ay écurie noonu la géej ay bëri ay écurie ay écurie waaloo nga fa écurie Double Less mais affaire de copain yi moo dem ba bëri quoi fu mu nekk nii. non fii Pikine dégg nga gars yi ne la benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar. ok Pikine yoo xam ne ay benn tel ñoo boole suñu ñoom ñun ñëpp ñoo foogandoo ñoom bëri benn kii bi la. non loolu làmb mënu leen a boole. non non loolu làmb mënu leen a boole wax dëgg fa yàlla. waaw kon daal gis nga combat bii daal euh, yow sa xel daal tey na ni ma déggee daal yow sa yow nga koo statut yow ah Modou Lo daal moom ku fonk kàddoom la quoi waaw moo tax ma xaw a kii xam naa Modou Lo moom moom nekkul kuy wax si ay médias yoo xamante ne wóoru ko war ko quoi moom lu leer lay wax laa xaw mën na bëri moom mën na xam ne teg teg sax ne ko ñooñu bëri normal xaw ma nag mais lu ñu waxoon avant tamit man moo nekk sama bopp man lu nit wax nag si loolu laay jàppandi ko quoi moo wax si gis jàmm ji info point net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 nopp dalatu na ci jàmm bët gis jàmm nopp dégg jàmm gémmiñ wax jàmm ci jàmm ji il foog nga koy amee na leen pour xam lan mooy xew ci seen réew ci jàmm fitna sax dañ koy nëbb jàmmal ko ba ñëpp am jàmm